lan laa waxoon wala lan lañ ma waxoon lan laa defoon lan laa ko defoon ban niveau la woon tak c'était là c'était en bas wala dama tëddoon dama toogoon tak ok lan la woon regarde lan la woon lan laa jëkk a mais naa dégg su dee li ma dégg la tak ok ma découvrir daal li ma déggoon hmm? ah. ay ca

c'est parti. am na ban loolu taxaw sax tam Well, no. كل رأس لا تدخل جاب Thank you. 안 넣어보고 맨캔 굴러 캔슬 라인 제가 사만 거든 굴러가 moom la it rek la ngay jooy li ma gën man man li ma gën moom la non non moom la man ay vingt et une heures laa tëdd garaay xoolal man ay vingt et une heures laa tëdd te comme yow laa gis vingt et une ah. heures laa tëdd. man de gis nga topp suñu groupe même yow la d'accord yow mii la léegi naa yow benn affaire moom la waaye moom la waaye stop léegi man d'accord naa ah nga ni non te yéen ñëpp dugg naa si maa dindi. ngeen deful ndànk du leen. maa dindi ma leen njëkk a dindi. maa njëkk nga def. maa ko gën a doon xale si la ci. képp koo xamante ne ëmb loo wax ko wax donc échange bi dama ciy jiite yi d'abord ñoom ñu waxtaan ak yéen bu ko defee balaa ñu fiy daal man bëgg naa bu fekkee.

xam naa ni boo ngeen moytuwul wax ji ñu war a wax yëpp maa a mais dinaa ko jéem a discipliné ba nga xamante ni yow di nga wax benn dix minutes moom aussi mu wax dix minutes mu demaat ci beneen point bu ko defee débat yi commencé nest ci gàttal woon sax toog ci gannaaw la laqatu woon parce que dëggoo ñu woon rek ñu tàgg si man damay gàttal rek sama tënk ci comportement artiste.

Mon un peu plus logé. loge pour le deuxième partie Seigneur, yónni Bruno chef du protocole mais ko demal roi. le roi Christophe nous donne plus tribune d'honneur Louis Christophe avec tout le respect que je leur dois le roi Christophe est dans sa loge quiconque a besoin de lui na pas ci fekk Dino, Bruno un

ñun nañ ko fekk su mu nekk nuyu ko ndax li nga xamni jot nañu ko war a gum ci première partie bi vraiment doy donc gis na ñaari chef d'état ak un homme de culture comme Aimé Césaire suñu déplacer suñu toogoon ñëw fekk comédien ci loge kon xam nga ñoo respecter nañu comédien wuute recevoir leen remercier leen pièce bi jeex mu wacc aussitôt fi mu nekkoon fekk len fi ñu nekk remercier leen donc dama doon joxe contribution rek noo mën a toll ci comédien muy borom quatre-vingts ans ba borom seize ans personnalité yaa koy may sabab ci gàttal bu ñu koy mën a waxee kilifa du at jikko la. ba rek laaj bu ñu comme contribution pour ne pas être trop long lu ma noonu xëy na nag mën a toog mu jeex parce que démb suma borom bu jigéen ñi gaañu woon ko yóbbu di ko suuli laata ñuy yegg anam yële jëkkëram gaañu mais comme góor a waxoon na ma lii sañ ma fi woon bañ a toog ñoom Ibrahima nag ak ñii. man dama nan rek ñom génération du devoir lañu di ko monsieur Niang waxee won ci livre bi am na ñoo xam ne seen génération sen devoir dañ koy def xëy te nit yéen sen génération droit de savoir la nangu ñen chaque fois mënu leen dem ci école académique bu théâtre yi mel ay conservatoire wala feneen mais lu mu gatt gàtt bu dee benn fan wala ñaari waxtu tamit am ngeen besoin de savoir yéen a ngi ñëw sàkku si loolu rek laa amoon problème moom laa ci wax ci gàttal. rafet

ñu wax ñu ñoom dëggantaan njaay ma ah, loo xamante ni yaakaar nañ ni def nañ ko te jëmalewu leen kanam fenn parce que tey jii da ngay jékki-jékki gis circonstance yi ñu mu demee ah sànq wax nañ ci balaa ngay gën a am lu la metti nga gis artistes yi ñu ngi ngay am lu a metti nga gis artistes yi cër bi ñu leen waroon jox des na balaa ngay am leen metti nit ñi koo wax damay dem def théâtre mu ne lu ñàkk fayda loolu baa ngay am lu la metti nga am ño xamanteni ni da ngay nekk ak ñoom ànd ak ñoom duñ la naw parce que c'est théâtre lolu yépp nag ci biir ñun suñu comportement daf ci am lu muy joué est-ce que ñun ñoo yombalal nit ñi ba ñu jàppe ñu ay baadool ci comportement nit ñi la wala ñun ñoo leen wan kanam googu gaay gars yi ne nañ uudee ko ah hein? ni mu la gisee wala te ñun tamit xëy na ñu ngi ci tànk yo xamanteni buñ ko jubee rek wala buñ ko teggiw mën na am ñoom ci ñi mako wara parce que des fois man damay wax ni l'art nourrit son homme je le dis tout le temps ci contexte bi ma koy waxee nag dégg-dégg lay laaj mais j'ai toujours dit que l'art nourrit son homme ci biir débat bi ci ñëw après gën ko leer donc mais ci comportement yi ci sañ-sañ yi bëgg nañ dal tay ñu xuus ci xuus boo xamante bu jëlee ñu ne waa ji filmer fekkee jar na ko ne ko fii ñu waxtaane ko baaxante ko ba buñ fi jegee mu mën a am leneen lu mu dóor dix minutes jërëjëf Ibrahima li nga wax am na solo trop waaye damay commencer ci benn mooy li ngeen war a débuter li nga xam ne moom la ñu war a njëkkee mooy artiste bi naka la war a mel lan mooy comportement ak nan la war bundee ci société bi dafa am benn affaire nag boo xam ne euh, boo ko seetee ci ñu njëkk a def théâtre théâtre dafa doon loo xam ne moo gën a fiir ci monde xam nga fiir mooy bokkul ak lenn loo ko booleel rek mu bàyyi la ak loolu boo ko fowee doo ci am dara boo ko joxee li nga xam ne moom la laaj li nga xëy suba mën naa ànd ak yow ñaari am nag du la jox dara nga xëy suba mu jox la li nga pertoon lépp loolu théâtre rek moo ko man amul âge rôle cent ans am na da ngay dem bay raam comme niñ ko waxee léegi Douta set bu muy joué rôle boobu gis ngeen ni mu toll parce que amul woon quatre-vingts ans wala soixante-quinze ans de cela donc personnalité bi dafa am solo leneen nag metti na ma trop trop trop trop te mënul guma ko faj mbër yi sax bu ñu dee def corps à corps dañ naan dangay ngay théâtre mel ni ñun li def fol mais du fo profession la réew boo gis ci àddina dans le monde entier bu amul ñuy def théâtre réew ma day yàqu benn pays du dox sans la culture culture mooy doxal réew am na ñoo xam ñu ngi ci àll bi télévision bi mu ngi leen di yee ci lu bari loo xam ne xamuñu ko woon lan moo ko waral mooy média bi ak ñi koy def mais dafa laaj personnalité bu ma sëkk man du ma ci njëkk dugg ki ma jàng personnalité ci moom su ma ko waxee ñu bari nañ ko xam muy abu Camara am benn bis ñu bokk dugg ci benn kaar mu toog yore kurusam benn kii di ko xool mu yàgg ne waay sama papa ngi nga dem bu ko xoolee bu ko xoolee yéen yéen ko xool di ko sax dem ba ki doon def loolu xam ni kii li muy def ni neexu ko

nit ko intelligent moo koy def mais pourquoi nag man ma am intelligence ba pare am lu ma sama borom may ba pare ma bëgg ko foyee ci mbedd mi man su ma rombee ci mbedd mi nii nga may kàll kàll nii du la sax lijjanti du ma la sax xool parce que dama lay wan ne li ngay def nii safuma mais bu fekkee da koy def boo génnee ci mbedd mi ñu la waay booy toj nga fii nga di def say grimace dem foofu lañ koy def dama lay wan ne lii may def nii métier la lu ma respecté du fowukaay pour man ndax abu mas na ma wax ni ma jóg muna, bob boobu maa ngi njëkk ñëw école des arts mu ni ma yow de yaa ngi fi doog a ñëw ma ne ko waaw man ma ñaata kii nga fi def ma ne ko ah, def naa fi deux mois de man ma mbaa di nga fi toog ma ah, ngi de ma soo yàkkamtee bokkuloo su fekkee da nga yàkkamti mu naa mun ma booyee ba nga teel jël say bagage te nga dem ma ne ko noo tonton man damay toog rek ba ma fekk mun ma boo yàkkamtiwul tey suñu borom mën na la fekk

man bëgguma kuy foye artiste quoi man bu ma gisee gars yi ko def ça me fait mal parce que man ci lay dund je l'ai dans le sang man duma ko jaawaleeg lenn bu wéso li may jaamu yàlla moom mooy sama deuxième religion man moy sama deuxième religion bañ naa ko ba jële fee même chez moi avec mes enfants donc loolu dafa am solo man defuma ko fowukaay kon war nañu am personnalité bu toll bolo nak def ben bombe et naa la xamal leen de artiste Sénégal yépp bu ñu dajé def benn loxo li ñu bëgg yëpp nañ ko am mais bu ñu tasaaroo rek day metti mais bu ñu dajaloo booloo ñun ñëpp jël benn kàmb bloqué ko nii li ñu bëgg dinañ ko am naanal Ibrahima xam naa ni temps bi moom dina la arrangé trop te grave yaa ngi dégg kon nag ñi nga xam ne ñi ngi topp ci suñu ginnaaw man damay sant yàlla ci benn affaire mooy soo dee def dara nga dem ba gis sa ay sa ay rakk di ko def nga dem ba mu yàgg nga gis sa ay doom di ko def nga dem ba mu yàgg nga gis sa ay sët di ko def nga war a xam ne li ngay def nii du fowukaay parce que bu doon fowukaay la kon du agsi fii du agsi li daal mooy ñu yokk góorgóorlu te jàpp ko bu baax bañ ko def fowukaay parce que am na ñu bari ñoo xam ne ci Sénégal affaire bi fowukaay lañ ko def man ça me fait réalité boo demee en Côte d'Ivoire par exemple ñooñu pour nga gis leen sax il faut nga ñaan audience pour gis leen ñun foo tourné gis ñu parce que Sénégal ñoo ko joxul valeur bi mu war a am kan. loolu mooy problème bi ñoom jóge nañu Côte d'Ivoire ñëw fii ñu bokk GNO fii Sorano ndaw si ne ma bon après vous allez ma déposer boobu aw ma sax vélo man ma ne ko bon ma voiture dans le garage là parce que maa ngi sagu mais boobu aw ma vélo parce que pour ñoom ñun am nañ lu ne ñoom ñun rek la ñu ciblé ñoom nee nañ comédien dëggantaan Sénégal la parce que boo seetee film yu mag yi ngay seen nii yëpp gars yi nga ciy gis donc suñu théâtre dafa am différence ak ñoom quoi parce que ñoom mën nañ def ay comédie ay clown ay affaire yooyu mais am na ci yenn drame yoo xam ne Sénégal la ko gars yi di amee loolu nag yàlla moo nu ko defal kon ñun tamit war nañ ko jàpp ak suñu fukki loxo et li may gën a encouragé aussi mooy surtout les femmes j'encourage les femmes xam naa nañ ne day faral jigéen ñu quoi mais xam naa ni ak lu mu ci mën di doon ak mbooloo bu mu mën doon war nañ jox jigéen ñi cër bi ñu war a am xam nga ñoom mbooloo mu ñu nekk suñu borom dafa am lu mu fay wàcc yàlla wax ci man waxuma ko imaam a ngi nii toog yàlla ñoom rek la tudd ci alxuraan ñun kenn tudd ñu kon nga xam ne ñoom dañu teg fële à côté war nañ def attention bu baax mbooloo boo koy am faw jigéen bokk ci saa bu ci bokkee rek doole group ba day yokk am na su ñoo xam fu nu bokk suñu borom wàcc fa xéewal kon itam rafet na itam ñu wax ci ñoom encouragé leen aussi parce que man bi ma seetaanee affaire bi sànq quoi vraiment sentir naa ci lu bari xam naa ne ñoom lu ñu bëgg la quoi xam nga ne nekk seen naaj bi sa waay ngay bëri mu di dem ak kenn fayu leen salaire dañ leen jox dara dañ jox leen dara mais lu ngeen gëm pare di ngeen ko bëgg mais ngeen ko bëgg ko gis day fay. tôt ou tard di nga ci mos am dara dama lay jox benn exemple dama ñëw fekk Iran Ndao di def conférence ma toog ci conférence bi di ko déglu mu def conférence boo pare di génn ma kàr ma ne ko Iran nga baal ma mu daal di ma nuyu ma ne ko man je suis un comédien ma xàmmee naa la ma ne ko dafa am lu ma la bëgg laaj ndax dama gis yow sa conférence yi doo ci boole maanaam ñiy def théâtre ak yooyu man ma koy def théâtre du dugg safara loolu rek laa la mën a wax daal di dem wan ma ginnaaw xam loolu rëy mais man dama buggoon xam parce que am na ñoo xam ne dañ jël affaire bi def ko maanaam lu ñàkk fayda ko mais affaire bu rëy la boo xam ne buñ ko xamoon bu ñu xamoon affaire bi mu toll wallahi azim état bi seen bopp na ko jox gëdd goo xam ne dina weesu suñu njort mais dafa am ñoo xam ne dañu fi nekk fii te xamuñu valeur jangoro fi nekkoon bu njëkk xamoon na ko macha allah parce que moom homme de culture la woon gaay dañ daan voyager ba seen passeport yi fess delu ñu di dem di ko renouveler ndax yek ci avion bi ba doy la mais ñeneen ñi fi ñew yëpp dañoo jël affaire bi à la légère te réew ma waxati ko encore du dox sans la culture jox leen ko cër bi ngeen ko war a jox rek wallahi azim bu ngeen ko joxe tôt ou tard di ngeen gis njëriñam ci àll bu fële ca gannaaw nga mbëg yewul ñoom per bu xar fa la ñu newoon kenn xamu leen ñuy def seen benn comme ni ngeen def nii rek dañuy jouer spectacle ci village bi noonu ñu invité gars yi ñu dem mu jouer fa rôle policier boobu bàyyi li ne kii daal bu demee festival kaw la gars yi ko gis ne invité leen mu ñëw ànd ak doyen ak beneen kii foofu la sunu borom jaarale mbiram xoolal fa mu ne woon ca ngeej ko ku ko xamoon mais liñ ko indi foofu la sunu borom jaarale mu ñëw fii ba keroog parce que démb la ma romb yore otoom bu tooy xepp ma ne ko àddina nii la c'est comme ça la vie c'est la vie doomu aadama bu nekk nag ak suñu borom di jaarale sa mbir mais li ma leen di encouragé daal mooy ngeen jàpp ko rek ngeen jàpp ko rek jox ko valeur bi mu war a am jox ko gëddaam su ngeen ko joxee suñu borom na leen jox li ngeen bëgg parce que ñun li ñu waroon def pratiquement jeex na parce que kii am nga déjà euh, am na mbokkam yu bare dañoo gaañu ci temps yi passé moom moo waroon dee sax mais comme moo leen envoyé ñu dem euh, renvoyé moom waroon na dem bu yàgg mais di leen yemal di par kenn ñuy dem xam nga wax na la ñaar déjà yu départ ah yaa wi te keroog ci eh, levée de corps Baye Pël Golbert dafa ñëw ñu jox ko parole il y avait Seydou Gueye le président porte-parole président de ya, eh, la République ministre de la culture gars bi ñoon Ibrahima yang fon, foon mu ne leen lii rek ngeen ñu mënal bu ñu deewee daal ngeen def discours di ñu jox seen di dem ngeen ci jógee rek fàtte ngeen da ngeen war a ci ñun nag te jox nu cër bi nu war xam nga moom fulla googu moom ak fayda googu moom won na leen ni moom ci loolu lay dund moom daf ko gëm sax daf ko gëm te bu ñu booloo def benn bopp te loolu il faut ñu dox ko il faut ñu dox ko il faut que ñu dajale yëpp ñu taxaw Macky Sall doxal mi bu ñu rek du baax duñ tasaaroo bu baax mukk mais bu ñu booloo wallahi la azim di nga toog fii nga daa ah, grand bi de xaw ma ma dund de yàlla moo xam day na ne grand bi fi waxoon loolu daal loolu buñ ko defoon bu yàgg kon kenn waxatul daal mais dafa jaaduwul pour ku feebar rek ñu naan diw feebar na fii ñëpp yuuxu tale yi ku nekk di wax man su ma nit mu naan ma mais grand seen waa ji dégg naan day seen gaa yaa ngi ko doon kii ak yooyu man nga sama ban waay parce que ça me fait mal ça me